li ko gën a bett ci mbir mi bokk na la posture de Mohamed Boun Abdallah Dionne non man li ma dégg sax bon bu fekkee ni li ñu li ñu ma wax loolu la waxante ñaawoo am na waaw na ñoom ñaar waaw il paraît que c'était c'était parce que li ñu ma wax ni moom la waxante moom ku ma yeewoon ci gént yi gën a kii ne ma Abdallah Dionne dina waxanteeg lii Macky Sall du ma ko gëm mais nag xam nga les enjeux de pouvoir son violents. et Macky Sall la prend à ses dépens. waaye xam nga nguur mbiru seytaane la et puis pouvoir xare la xam nga parce que man liñ ma wax vraiment bu fekkee ni buñ Abdallah Dionne waxante na loolu ak Macky Sall. nañu foofu. c'est-à-dire affaire bi tàngoon na te <laughs> affaire bi grave na mais bon. mais c'est c'est ça surprend tout le monde. ah man de bett na man bett na mais cela dit aussi Boun Dionne euh, dans un monde normal Boun Dionne candidat bu sérieux la c'est vrai am na expérience. Euh, et puis euh, man bokk li ma mën a wax ci moom li ma gis il fut un excellent premier ministre. premier ministre c'est celui qui a porté presque euh, tout le mandat et tout le bilan de de de de Macky Sall. et puis euh, nit la koo xam ni même bu waxul ci kaw dafay def ci suuf lu bare bare bare xanaa xamoo ni choc yi am yépp ci nguuru Macky Sall bi buñ jonn demee la. parce que muy syndicat yi muy étudiant yi muy média yi buñ doon dañu amatir lu bari ah ñu nekkee. mais ñoom ñaar réeróo bi est-ce que Boun Dionne amul déception parce que bun Abdallah Dionne il fut poste PM mm-hmm. mu nangu sans problème sans bavure ñu supprimer poste bi bien que Macky Sall moo am prérogative boobu mais dafa accompagner processus bi bind texte yi réformer def lépp. ñu neme ko EGPR après ñu génne ko ci nguur bi est-ce que jàppul ne Macky Sall am na sacrifice bu mu def Macky Sall fayul naar bi xorom est-ce que jàppul ne dañ ko trahi nga waroon posé du loolu man li may xalaat du loolu man li may xalaat mooy est-ce que ñoom ñaar amul lu ñu waxante woon ñu dem ba ca cëppaat daw ga buñ jonn gisu ko genre que bu ñuy ramener le poste parce que dafa am le premier ministre moom moo koy occupé xam nga nit aussi da ngay xool da ngay xool boo xoolee diggante ñaari nit nga xool lu mu demee parce que y a le principe de l'action réaction maanaam nit dina def lu bari nga yaakaar ne dafa tooñ fekk dafa fayu man laa question que je me pose man ak li ma dégg ni ñoom ñaar xew na seen diggante question bi may posé wu mooy ñoom ñaar lan lañ waxante woon est-ce que amul lu ñu waxante woon yoo xam ne dañu dem ba jëmmi jamono bun jonn gisu ko. moo am déception man man question boobu laay posé wu man. moo am déception waaw parce que nag euh, il n'y a pas de fumée mais est-ce qu'il a, des chances de se de se tirer d'affaire. waaw bu ko Macky Sall taboon nag lay ëpp ay chance moom dëgg neexul. Hmm. bu ko Macky Sall taboon lay ëpp chance mu dem ak boppam te dëgg-dëgg. et dem ak bii boppam sax. je me demande ba xam dina am parrainage yu mat vraiment bu ak Macky Sall taboon la yëf di gën a yomb ci moom. ci moom nii moom vraiment day gën a jafe ci moom.